ànd ak Ababacar Fall bu Gradel ay kàddu yu mu yëkkati jëm ci nomination yooyu nga xamante ni nii def nañ ko fële ca Sénat mu wax ci eh, ñu dem xooli ko ànd ak Modou Diouf du Abdou Top. boo demee ci article sept li nga xam ne moom moo wax ci maanaam affaire Sénat euh, ni leen war a nommer ak naka lañ leen war a euh, euh, jëlee foofu dafa wax ne képp koo xam ne en tout cas membre Sénat nga ñu nommer la fa dañ leen nommer pour un mandat de six ans ci est renouvelable à tous les trois ans loolu amul. dañu xëy rek gis ne ñoom ñëpp daanaka dañ leen a nu mu tëti donc maintenant leneen li ci nekk mooy protocole additionnel de la CEDEAO dafa wax ne fi ak maanaam juróom benn weer avant ñuy def élection yi waruñu def benn changement substantiel maanaam changement bu xóot ci maanaam loi électorale yi te acteurs yi vraiment ñu ci or boo xoolee ba xool loolu amul donc parce que Sénat dafa nekk institution boo xam ne bu am solo la ci wàllu contrôle élection yi ñu xëy dàq ñëpp te waxtaanuñ ko ak maanaam euh, yeneen kuréel ku jigéeg acteur politique yi ba nit ñi am ci xëy na Euh, gis-gis boo xam ne donc bu bu bu bu la loolu déjà problème la boo xam ne vraiment ñun dañ koy dénoncer la ca des tamit mooy loi bi dafa wax ne buñ leen di tànn dañ leen di tànn après consultation dafa am kuréel yoo xam ne mooy kuréelu avocat yeeg défenseur de droits de l'homme yeeg universitaire au moment dañu war a consulter ñooñu ñooñu joxe liste boo xam ne maanaam liste bu ci nekk ñetti nit président daal di tànn mais depuis quand même mën naa ne un certain Aïcha mi ngi noonu moom Ababacar Fall alaaji dégg nga kàddu yu mu yëkkati jëm ci euh, nomination yooyu nga xam ne président Macky Sall def na ko nee na nag euh, ay élection buñ ko dëgmalee bu desee juróom benn weer waratuñu laal benn kuréel bu nga xamante ne nii dañ ko teg ngir muy superviser élection yi nomination yi yow euh, ban lecture nga si def waaw Ababacar Fall <coughs> Falen bi ñu ngi koy nuyu xam nga. <laughs> Ah, Falen yi seen buur laa <laughs> ko waaw mais ñu ngi koy nuyu di ah, ah. rafetlu bu baax. leeral yi nga xamante nii euh, wax na ko ci penc bi muy lu am solo. Mm-hmm. man parfois damay wax ni boroom xam-xam yi ñoom ñoo jaaxle ci réew mi. waaw parce que li ñu jàng ak li ñu xam. Mm-hmm. jàpp ni nii la yëf yi war a doxee léegi yëf yi dafa soppeeku ba yéem leen. Mm-hmm. xam nga bésub tey bii ñu ngi xaar ab dogal ca CEDEAO mm-hmm. te lim la wax nii rek mooy violé nañ dogalu CEDEAO wallaahi ki fay violé dogalu CEDEAO mm-hmm. bu la waxee de la dana jëfee dogalu CEDEAO bu war a ñëw ah, alaaji la preuve rek mooy Khalifa Sall amoon na fi <laughs> ah, ak doomu Abdoulaye Wade muy Karim c'est que c'est que c'est loolu mooy li nga xamante ni mooy li mm-hmm. bi ñuy wax nii CEDEAO joxe gu ñu dogal ci mbiru Ousmane Sonko et pourtant mbirum Sénat bi. Mhm. la nga xamante ne bi moom la CEDEAO wax ne. bu mhm. tollee ci nangam weer juróom-benni weer kenn waratu la laal. Mhm. tas nañ ko kon loolu dalay wan ne la. ñii moom dogal ak bu fa mën a jógee pare nañ ñoom bu leen intéressé wut intéressé wu leen waaw maanaam li nga xam ne moo leen ñor moom la ñuy kii looloo tax nag boroomu xam-xam yi di am jafe-jafe parce que dañuy tënku ci loi. mu nekk lu leer loo xam ne lu ñu bind la ay nit jàng ko teg ko tey dii nag ñu ñëw di ko doxalee nu leen neexee selon bëgg-bëggu nit te loi bi biñ koy def defuñu ko ngir ma sàmba nii ngir ma demba mhm. dañ ko def ngir sénégalais yi mën a dëkk ci réew mi xajoo ko waaye bu ak galgati di am loolu mën na jur lu ne si Lamine ñas yàlla na yàlla dolli ay leeram. alaamaaleykum. kàddu gu ko neexoon la gu mu doon faral di repete réew moo xam ni amul droit amul kii mu ne nit ña jub ca kaso ya la ji dëkk loolu ñu ngi koy gis te pourtant loolu bi ko siit Lamine di wax mbir mi demee wutoon nii donc nga gis ni Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum daal wax ne. réew mu amut yoon nu fa nit di dëkkee maanaam moom nan lañ mën a dëkkee ci fu amul yoon musiba la et pourtant fim mu toll nii tey ñun li nga xamante ne bi ñëpp àndoon nañ ci nangu ko ne lii la yëf yi war a doxe tey jii léegi loolu mbir yi doxee tut noonu mm-hmm. maanaam lii ñëw moom leneen la lu wuuteeg li nga xamante ni bi moom la nit ñi di gis donc loolu nekk loo xamante ni euh, ay mbir yu doy waar la donc nag mais lii boroom xam-xam yi def hmm. dafa baax ñu koy wax ci pénc mi parce que bu ñuy def li ñuy def te kenn waxut day mel ni lu normal la mais il faut nit ñi di génn di wax ni yëf yi warta tëddee ni nii lay tëddee bu ko defee sénégalais yi ci seen jëmmi bopp ñoom di comprendre li nga xamante ni bii mooy yëf yi. mais El est-ce que tamit ki ñuy waxal mi ngi dégg parce que boobu ba tey à chaque fois dangay ngay gis muy tëral bañ na ko ba dañ ne même mbir yi sax boo koy soppi waxtaan daf si war a am certes moom am na droit ñu jox ko pouvoir exécutif muy exécuter mais ban doole moo romb exé exécution ba tey jii nii ngay jël sa ay ndogal nu mu la neexee te sénégalais yi toog di seetaan comme ni ñu koy defee. boobu ba non du moom la ñuy waxal de waxuñoo parce que moom xam na ko lii. mais sénégalais yi kii bu génnee di wax. waaw sénégalais yi xamut lay xamal. parce que dafa am sénégalais yoo xam ne boo leen xamalut. Hmm. dañuy jàpp ni lii normal na. ñoo ñu lay waxal mais waxut ak ñi ko def ñi ko def ñoo gën a xam yëfi maanaam dañoo def li leen neex lañ def dégg nga ko nañu war a tànnee ñi nga xamante ni ñooy membre ya dégg nga jaaru jaaruñu sax ci yoon woow mhm. kon loolu daf la daf koy wax ñi nga xam ni ñoo xamul yëf yi ni mu demee ñu mu xamal ñu ko. ñu xam ne nii la yëf yi war a tëddee te tëddeewu ni loolu day dellu rek ci ki nga xam ne moo jiite léegi ni nga xam ne noonu la bëgg a yoree réew mi nga gën koo xamal nit ñi mu leer ne kii kat nii la bëgg a yoree réew mi. loolu c'est très important déedéet waxuma ñu bàyyi ko ñu kii de mais loolu sénégalais bu ne dugal na ko ci boppam xam na ko waaw sénégalais bi xam li ngay def nag ba noppi nag toog di la déglu. Hmm. defe naa ni boo dee borom xel tuuti nga def très attention. parce que ki xam li ngay def ba noppi mu toog dina déglu bàyyi la rek ngay def war nga def très attention xam nga présent Macky Sall mi ngi dem rek. Mm-hmm. mi ngi dem rek. amee ah, dem nag xam nga wolof day wax ne wax du jeex waaye dana sës jëfit du jeex waaye dana sës. du fekk mu lu trop tard amut. Ah. ci day am rek ñenn ñoo xam ne jiw xam nga ñëpp bokkuñu temps. temps mbir mu individuel la. léegi ñëpp bokkuñu temps parce que yow li ngay jàpp ci yow yeex na hmm. am na kuy jàpp ji moom ne gaaw na hmm. li ngay jàpp ni gaaw na am na ci ku muy jàpp ni yeex na hmm. donc temps problème mu nit la waaw peut-être am na ñoo xam ne tey jii boo nee trop am na ñoo xam ne fekkee wuñu ci période bi ñuy wax nii anañu ñu nga fële comprendre kooku kon mbir mi amatul gaaw ak yeex ci moom maanaam moom fekkewut sax far comprendre nga mm-hmm. maanaam moo tax tubaab yi ne il n'est jamais trop tard de bien faire mm-hmm. donc loolu lu am solo. waaw te olof Njaay nee kenn du la may lépp it nga jël lépp